boo fa dëgg yàlla mais mais mais Ballago Ballago nag naa la alamaan tey tardé nga nag. di maa ngi lay ziar si daat na def waay. maa ngi lay ziar sekk sa nganaar. ziar ko lii ko ñuy déglu di ñu seetaan tamit via RFM. Mhm. parce que xam naa ni am nañu pàcc ci wàllum. internet bi hein. donc xam ni sax direct ah. waaw waaw ah, nous sommes direct partout partout waaw. gisoo gisoo fi nu feesee waaw maa ngi gërëm ñëpp di ziar waaye xam nga lii mooy xorom émission. waaw lii mooy xorom si. <laughs> lii xorom si. en tout cas waaw et ça fait plaisir aussi. waaw. trop. ma la si daat. gëj du gis soirée au Vogue. Mm-hmm. comme on koy jaxasee chaque week-end mais dama nan gëj yow. Mm-hmm. nu ci FM mm-hmm. bi ci digital bi comme ni nga amé ay soppé fep ci nous bi yow Sénégal bëgg la. Afrique bëgg Asie bëgg la. Europe bëgg la monde entier bi yëpp bëgg la ngay xalé que wax fa dëgg mën wax ni ba nga nous ci ba da da niveau bi c'est pas évident euh, d'être un jeune manam yegal level bi famu mu lolou c'est le secret de wali xam na dinañ ci ñew ci kanam mais d'abord damay jëk jox le la kàddu ndax ci ñepp la namone et puis nous sommes en direct sur www.rfm.sn ni ngi partout ci digital yi et puis aduna bi ñepp di la seetaan ma bàyyi la nga dal di saafonteeg nit ñi en même temps souhaiter waa sax euh, les mes meilleurs vœux hein, 2023 parce que gët neen la gis bu ko défé ñepp dal di am mbégte ak contentement. waaw Sida comme ni ma ko waxee rek maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. Ah maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, di leen wax ni euh, man tamit am na contentement aussi jàkkaarloog ñoom. Mhm. Euh, surtout jàkkaarloog yow. bokk nga ci li may indi fii tey vraiment ma la koy sante ji la ko gërëme di leen wax ni vraiment tey moom émission bu spécial la. <laughs> dafa spécial ndax fii laay ndekkee xaw ma nag la lañ may jox xaw ma dañ may jox jambon <laughs> fromage, guerre. Non, yo, tout ce que tu veux. <laughs> Café tout ce au que tu veux, nambé, <laughs> ça dépend. Hein. <laughs> Mais les gars, amenez-moi les nambé, les pintons, tout ça, et puis euh, du café. Tu prends du café oh, J'adore le café. Alors, donc, euh, du café pour euh, le marine, Et puis, euh, les nambé, hein, vous faites qu'il n'y ait pas aussi une Ah, comme on parle, Mais bien sûr, nous on parler de donc Wally tàllal la loxo internet yi ñëpp ngi lay envoyé ay cœur et puis de leur le meilleur le meilleur le meilleur euh, donc euh, nul euh, digital bi. waaw ma ngi leen di ziaré bu baax a baax di leen ñaanal jamm di leen wax ni content na trop trop trop trop vraiment. super waaw alors on démarre le Marine, il est là il a fait un album exceptionnel un album de 15 titres qui s'appelle État d'esprit album bi nak fan yii la Wali, bo batay tey mi ngi nek ci ay album yo xamanteni ni mën wax ni national et international donc depuis très longtemps mi ngi def annonce et puis gëj na album jox na ko très longtemps ñëpp di ko euh, demandé Wali gëj nga album gëj nga album depuis très longtemps mu génne album bo xamanteni nak nag mun wax ni ba mu génnee bo ba légui nak dëkk ba ngi toj challenge yi di wone seen bopp Wali fo tëgg mu fess te mu melni kon dafa melni dañ la doon xaar album bu depuis très longtemps indi état d'esprit d'abord le titre de l'album état d'esprit ça parle c'est quoi état d'esprit Wally état d'esprit euh, mindset pour euh, euh, ça reflète hein, mm, le chanteur Wally Balagosek. tu parles de toi. ouais parce que j'ai un esprit de dépassement. ah super. Hein? Eh, état d'esprit eh, nit kenn du ko wax yarul waaye war nga ko mën a wax muusal mhm. ah, soo muusee nag ah, di nga mën a yaru di nga mën a am esprit de dépassement di nga mën a jéggale jëlale c' très très important sëñ tubaab moo ko a jàngal la eh, bu ma delloo ginnaaw tuuti sang yonent bi suñu yonent bu tedd bi mouhamad rasulullah salaa sallam moo ñu ko njëkk a jàngal parce que nettali nañ ma

euh, la bataille d'aujourd'hui c'est pas de prendre des des bâtons des pierres des tu vois des armes la bataille c'est psychologique pour moi. Oui, je suis hein? d'accord. Hein? Tu peux te battre intellectuellement. C'est l'intelligence, quoi. ça, définit l'intelligence pour moi. Donc, vraiment, titre le approprié sama aussi sénégalais adopté. par rapport d'esprit. en fait man Wally. le seul problème de Wally c'est que wali aime Wally. <laughs> je n'ai jamais entendu ça Wally devrait déglu Wally ah. waaw Wally dafa bëgg Wally. et que Wally léegi biy déglu Wally eh, qu'est-ce qu'ils sont moom. waaw damay xam afay am ay yek yek yu may yëg. Mhm. Ah, am na benn niveau boo xam ne su fa àggul rek pour man neexul damay dem defariwaat. ok ba mu fay àgg. donc Wally day fait donc fait des recherches tout le temps. waaw waaw dama koy dama koy mën naa déglu benn morceau. pendant un mois seulement. ma wootoo fekk alors tey bu lay la ci production bi Yagna. na nu war la xaar nga indi album bu et ça fait des années et des années génn woo album mun nañu wax ni pendant cinq ans les six ans Yo, si je me trompe pas. Mhm. génn woo album. Mhm. alors album bi nga indi Wali, yi gis neen ni que sénégalais yi dañ ko doon xaar lu yàgg a yàgg mhm. mais yow mi nga xamante ni que aussi y a des productions bi. Wali, album état d'esprit lan la le coûté parce que xam naa ni tamit.

donc xam nga euh, structure la boo xamante ni Ramadane ku ci nekk mën nga enregistrer sa morom. ok donc euh, dañ doon tey dañ doon dem ci Fallou suba ñu dem ci man gannaaw suba Papis noonu di ko dajale donc def nañ ay trois mois di veiller di ko liggéey di teg di liggéey di teg di liggéey di teg mais le coup, su ma koy xool damay su ma ko bëggee estimer ah mën naa juum parce que c'était pas c'était pas mon domaine moi je faisais que financer lépp dañ ko tegoon ci loxo Youssou. mais li nga doon financé. ouais bàyyi nga ci xel quand même. wallahi l'azim c'est-à-dire moi quand je dépense pour la musique pour ma musique. ñaata nga def 50 millions 100 millions. je sais même pas wallahi l'azim pour ma pour man su may ci man du ma calculer loolu mooy suma. tu calcules pas non non non non. non. tu saurais, tu calcules pas je calcule pas. parce que pourquoi ça lépp li ma musique moomu ko may. ok man Sidaat mënuma dara man mënuma daaj. mënuma mhm. mënuma tabax. Mhm. xam nga. Mhm. mënuma dara. musique rek la am ah.

et puis Sénégal ñëpp la doon la xaar tay alors c'est un album de 15 titres Wally tey su lay laaj ci album bi li nga woy ci texte li nga woy ci thème bari na mais ban mo li ci gëna c'est que bokku ci album bi nga xamanteni euh, c'est la toute dernière production de Wali et puis l'état d'esprit que ni euh, da nga gis ñu bari soit ñu lay xalab wala soit di la euh, di la di la dëkkal soit fo dëkkul wala soit.

C'est kattan mot c'est à mon tour mais nous koy déco aussi en tant que go, parce que père de famille euh, tu as tu as une famille tu as une euh, tu as une femme euh, tu as une mère tu as des frères tu as des sœurs tu as des amis tout ça comment tu le vis je le vis naturellement comment même quand j'ai mal moi j'ai pas le droit même quand j'ai mal moi j'ai pas le droit de dire ou de faire certaines choses et ça te fait mal. Wow, parce que xam nga lu tax j'ai pas le droit. Hmm. si daat suñu borom nimma defal la lim defal la man nit ci dañuy xulo té man du ma Kan yo yow gaay di xulo? man du wax mais si loolu seetlu nañ ko nit yi ñoo wax bu ñu nit di wax yow doo wax des fois sax nu bëgg ni ne waay dafa wara def sorti nak mu leeral li <laughs> waaw mais euh, xam nga kérok hein? dafa am loo wax lu am importance nga ni ma. Uh-huh. Sidaat. Mm-hmm. keroog ci deug soirée bi fa mu neexee ma ñëw fekk la ci kaw scène bi. Mm-hmm. nga ni ma Sidaat li ma musul wax ci émission. Uh-huh. lolou mi ngi tourner mi ngi. <laughs> li ma musul wax ci radio <laughs> li ma musul wax ci télé. Mm-hmm. yow la kay waxtanal et lolou ça m'a touché parce que je sais que tu as énormément de choses loo war a ak sénégalais parce que ab Fall nga dañuy wax ni ab Fall nga. te it ku la gis tout temps rawatina ak euh, lox ak njol yi dañ lay xolé Serigne Abdourahmane Tilala. Fall yalla nako yalla xari xaare àjjana. muy sa Serigne di sa jëwriñ di sa référence. Mm. euh Baye Fall gog ngay dund mooy tax lu bari dang koy dëkku ba tax. Do wax ak nit ñi waali du xeex waali du xuloo waali doo ko dégg ci ay coow waali du tontu mais c'est quoi ça waali lan la. damitu malaaka nga wala lan la déedéet déedéet man jàmbu mais mais nit rek nga waali. man jàmbu xeebu la mais dama ne rek li ma li borom bi defal Sidath man gënuma kenn man àgguma fenn fu kan fu kenn àggul li borom bi defal teranga la. Mhm. yëg naa ko. parce que am na koo xamante ne tey ci mbedd yaa ngi koy romb bu sañoon mu doon yow. dégg la te yow boo sañoon doo doon moom. dégg la ak ma laa dégg. même su fekkee am na lu nëbbu ci ginnaawam ci baatin. Mhm. boo sañoon doo doon moom. c'est clair. waaw. dëgg la dégg naa la baax sax. lii lépp ci état d'esprit la. donc yàlla bu la defee noonu. yow waratoo yi waratoo. waratoo wax daal nga ixsaanal fa bu ma demee ba mënatuma ko dékku. Mhm. j'aurai l'honnêteté de te dire diir mon grand frère d'honneur ma nga ne ma waaw man la la je décroche. non non non loolu moom du am loolu moom du du la ci seetaan sax <laughs> Wally attends def information yi le temps nu agsiwaat. Euh, gën a faram euh, album état d'esprit. mesdames et messieurs merci d'écouter la radio de toute l'actualité il fait exactement 20h00 minutes. les informations en bref à la présentation Jean-Paul Ndour Jean-Paul bonsoir. bonsoir Sedat. Jean-Paul Ndour, c'est quoi la une de l'actualité Un incendie au quartier Medina Dumbour a fait un mort. La victime s'appelle JBC, un jeune de 22 ans. Il s'est fait électrocuter alors qu'il était venu secourir les tailleurs d'un atelier qui a pris feu, nous dit notre correspondante sur place, Naïmati Gain. 48 Sénégalais actuellement détenus à Las Palmas en Espagne, information de Boubacar Sey, président fondateur d'Horizon sans frontières. Ils sont dans un centre de rétention opération de placement des cartes de membres et de renouvellement des structures du Parti démocratique sénégalais. Le président Abdoulaye Ouad, après avoir acheté sa carte de militant à 1 million de francs CFA, a accordé un mois 15 jours de plus aux militants pour boucler le processus de montage des secteurs selon l'équipe de communication du PDS. Conférence de presse de frappe à Saint-Louis, Guy Marius Sagna a surtout dénoncé le licenciement abusif de 52 agents de la compagnie sucrière sénégalaise L'activiste promet une grande marche à Richard Toll pour pousser les responsables de la boîte à annuler cette décision. Le député est au micro de Diop. Parce que ces licenciements sont injustes, arbitraires, illégaux et illégitimes. Si des solutions ne sont pas trouvées par la CSS et par les autorités de ce pays, chargées de faire respecter les lois et règlements de ce pays par tout le monde, eh bien, après cette conférence de presse-là, dans les jours et semaines à venir, nous allons organiser une grande marche à Richard avec les travailleurs, leurs familles et leurs voisins. Ce que les syndicats et les centrales syndicales ne veulent pas faire pour eux, eh bien, ces travailleurs-là, avec nous, nous allons le faire pour nous-mêmes. Deuxième point, enfin, ce qui est le plus scandaleux dans, dans, ces 52 licenciements effectués arbitrairement en toute illégalité par la CSS, c'est que ce licenciement est effectué par la CSS dans une localité, Richard Toll, dans un département d'Agana, qui est la localité, le département du président de l'Assemblée nationale. Inauguration de la mosquée Mohamedou Seydouba de Bob Makissal vient d'achever un chantier de 40 ans. Le coût de la mosquée est évalué à plus d'un milliard 500 millions avec une capacité d'accueil de plus de 8000 fidèles. Le chef de l'État a aussi profité de l'occasion pour livrer le titre foncier de la mosquée. Le calife de Medina Gounas magnifie le programme spécial sur les sites religieux. Révision exceptionnelle des listes électorales, le bureau politique du PASTEF estime que l'urgence est la publication du décret fixant la date de l'élection présidentielle. Ils exigent l'ouverture de la revue du code euh, électoral. Le bureau politique des Patriotes exige aussi la nomination d'un ministre chargé des élections crédible ainsi que celle d'un président de la Sénat consensuel à même de garantir un processus électoral ouvert et transparent. Chan 2022 pour finir, Niger-Madagascar pour la troisième place, c'est la mi-temps actuellement. Demain, 19h30, la grande finale Algérie-Sénégal à suivre sur la Radio Futur Média. C'est tout pour ce flash qui vous a été présenté par Jean Poundour en compagnie de Matar Bossidat. Je vous laisse en compagnie de votre invité Wali Balagosek pour la suite. Est-ce que tu as une question pour lui oui euh, déjà le féliciter le saluer François je ou lay nuyu bu baax fay il s'appelle Jean-Paul Nour. Jean-Paul Nour, mes respects. mes respects fekkee déwén waaw na yàlla yokk xéwal yi. yokk sutuga si. amiin yaa waaw yokk jàmm yi ci réew mi amiin gën a yóbbu musique bi également bi ngay def ci kanam. incha allah amiin et puis gën la ñaanal itam. amiin amiin euh, man dafa am benn tweet bu ma gis récemment. Mm. Euh, bu Jacqueline Fatima Bokoum. Ah. mu bind Jacqueline Fatima Bokoum nekkoon euh, journaliste présentatrice ca RTS. Ah. mu ne dafa am ci benn daara bu mu demoon. Mm-hmm. def ay don mhm. euh, bu mu ñëwee ñu ne ko ah, Wally de fii la jóge sànq te def na fii lu am solo mhm. mu ne xamula mosula gis waaye naw na la mu ngi lay admirer ci ci acte boobu mu nekk loo xamante ne daanaka à l'unanimité mhm. nit ñi nangul nañ la ko yàlla na yàlla gën a dëgëral euh, sa taxawaay bu ko defee bàyyi la fi lu yàgg a yàgg yàgg ko defee nga mën di wëyal Euh, acte yu mel noonu. incha allah ci mim réew ak euh, bitimi réew. jërëjëf kontaan naa. Euh, di la jaale itam paa wi. na ko yàlla xaaree aljana fiw daal. amiin amiin amiin amiin kontaan jërëjëf. léegi ça a été un plaisir ñoo ko bokk léegi album état d'esprit. Mhm. nekk album boo xamante ne man ci. écho yi ma ci dégg rek mhm. defagul buzz bi nga xamante ne xëy na say say yeneen album def nañu ko mhm. yow est-ce nga sentir ci yow lu ko waral wala du noonee nga ko gisee. non bo xam nga ne yëg-yëg moom kenn du ko. Mhm. kenn du ko arraché kenn. alors euh, sur ce état d'esprit pour man bokk na ci moo nekk suma meilleur album bu mu mës def ci àdduna. Mhm. mën nga sentir. moom laa yëg en fait. Mhm. alors sinon pour ci pour retour yi. parce que man ay échos yu ma dégg rek. c'est pas un baromètre boo xamante ne ay sondage bu fiable la wala lu leer la retour yi ma ci am. Mhm. aussi c'est des retours euh, positifs ah ñi ma ci jot ñëpp ku ci nekk am nga sa morceau sa bopp eh, mais n'oublie pas album bi mi génn léegi defagul deux mois. Hein. Mhm. Hmm. mais mais par rapport à aura bi nga am. génneegu ma sax génneegu ma sax ben clip rek la génneegu. wa d'accord mais par rapport à aura bi nga am ak <laughs> fi nga toll tay ci musique u Sénégal. Mhm. Euh, ndax yaakaaroon ne xëy na waroon na dépasser fii déjà quoi côté euh, côté publicité bi côté audience bi ak gaay xeyna challenge yi na naroon def son yi ak euh, buzz bi mu naroon def dal wala yow gisé wugo non bon je pense que meilleur album ah. meilleur album bi génn ci album ci at bi. Mhm. ci côté buzz ak challenge yëpp état d'esprit la. ok bon ci li ma gisagum na xëy na bu fekkee dafa am benn internet bu am fii wala benn réseau bu <laughs> muy daw fii mais li ma gisagum man ci suñu réseau Sénégal. Mhm. alors tu vas sur internet. Mhm. soo demee Apple Wally moo jël pied iTunes Wally moo jël pied. en Afrique bu ñu xoolee les dix premiers en Afrique ci la bokk alors donc pour man mooy meilleur album bu ma mës def. léegi état d'esprit lu tax nga duppee ko état d'esprit eh, ci eh, yow sa état d'esprit la wala état d'esprit boo bëgg sénégalais yi am par rapport à lan écoute xam nga waykat moom soo wayee da ngay jël nga approprié ko sa bopp ba pare parce que hmm. bien commence par soi-même par soi-même waay hmm. man dëkkoo naa ko adopté naa ko alors libre à quiconque ku ko bëgg approprier waaw mais yow c'est-à-dire que dafa am benn état d'esprit boo amoon euh, tey nga màgg walla di màgg am euh, beneen mindset bi nga am euh, di fa jëm bëgg sénégal yi gunge la fa walla dafa nekk rekk benn titre boo xam ne da nga ko def nii walla kenn moo la ko suggéré. et cetera non non non c'est c'est quoi l'histoire l'état d'esprit c'est mon choix parce que li ñuy wax mindset du du arrêté wu mindset du dañ. dangay mag di mag ba keroog ngay nek mère wala pas dangay mag. parce que à chaque fois ngay guen yaa ngi découvrir lu bess à chaque fois nga guen xam lo xam won chaque jour nit guen xam lu mu xam won wala romb lo momul donc euh, pour man li fi ma gënon focaliser wu ci moy esprit de dépassement hmm. manam jiggle, ak jëllale Mhm. c'est très très waaw li may jeexalee rek balaa may bàyyi si daat mu àggali mooy fi réew mi toll tey am na ñu bëri ñoo xam ne am na fitna bu ñuy ragal. bu ñuy mhm. ragal ci way politique yi. ndax euh, yow gisoo ne

ci sa titre yi est-ce que am na ci benn. par exemple boo xoolee boo xoolee tey bo si. ban la ban la ci. Mhm. bëri na non ma ne ci 15 titres yi bu état d'esprit bi est-ce que am na ci benn boo xamante ne ci loolu la jëm wala. ça parle de l'actualité quoi. non ça parle pas de la de de de de côté côté politique. mais tey ban message ngay lancer Sénégalais yi en tant que leader d'opinion ci. moom laay moom laay wax nii ma ne su may wax ak tout le temps généralement pour ñu bañ ñu déplacer samay propos. Mhm. je préfère parler avec ma communauté. Mmh. quand je dis ma communauté c'est-à-dire que nga avons la à tête reposée parce que qui veut Wali, soit vous di wax un dina ko déglu mais attention ki nga dégg waxi day Vous wax mu jëm ci li ci mu jël ko utiliser ko donc saa en plein concert. faire Vous xam je ni man pas rek Je vous jeunes yi dama vous wax nañ cool nañ leen bëgg liggéey. mais am na luy vibré foofu de c'est quoi. alors c'est le portable euh, bi Life ah bon waaw jox ma ko jox ma portable jox ma portable <laughs> jox ma portable donc ah. tout le temps dama koy wax dama koy wax sama samay propos. Mhm. donc vraiment mais bu fekkee ni aussi dafa laaj aussi ma ma adressé wu. waaw ah, foofu la réew mi toll ah. foofu la laaj. waaw mais je vais demander conseil. voilà à mon entourage xool parce que y a y a des choses que je peux pas faire tout ah, seul il va falloir que ma waxtaan ci ak si bu fekkee def ko la dëgg ñu def ko waay mhm. en tout cas maa ngi lay euh, gërëm di la féliciter di la encourager merci beaucoup waaw yoon bi yombul bëri na ay xaaxam waaye noonu la àdduna tëddee yàlla baax na yàlla baax na waaw jërëjëf sëñ Sidaat mais Jean-Paul. À vous l'antenne. Euh, merci. Directement, ci laay demaale sa waa seetu waa rédaction Wa rédaction salam salaamaaleykum. waaleykum salaam DJ Sidat. mais bàyyi nañ ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm bu baax Sidat. di leen di gërëm di leen sant di leen ziar ma ngi euh, de la ziar aussi sa invité. alors sunu invité c'est le chanteur du peuple Wally Ballago Seck. Wally waay. ñëw ñëw ñëw seet si si daat ci kër gi la maison ñu daal di bégal soppeek xarit yi. Mhm. alors si vous avez des questions on vous écoute. oui euh, benn question la bëggoon a euh, poser Wally di ko dalal euh, vraiment Wally ñu ngi lay dalal bu baax ci Radio bi. maa ngi ziar bu baax. Jo Maron ngay waxal. Jo Maron maa ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax a baax. dama seetaan benn vidéo xam na yàgg nag. Ah. ma gisoon euh, ci ay jigéen yu yoo doon jox xaalis je pense ci ci oto muy jooy mu gis femme bi muy jooy di la ñaanal. Hmm. lu bari bari donc ça loolu mu wone ne euh, réew mi am na ay problème hmm. surtout problème yi askan wi am nga dund bu cher. Hmm. ak euh, lépp lépp quoi mais rarement waali la laa lay dégg ngay wax ci mbirum cherte de la vie lan moo tax. souvent duñ euh, la faral di dégg ci yu mel noonu ngay wax ak kilifa yi parce que comme leader d'opinion nga te gis nañu bu nit ñi sonné rek déjà yéen ñi nekk ay artistes aussi parfois nit ñi dañu ñëw ci yow soxla dara pour nga jox leen ko quoi. waaw mais loolu loolu euh, loolu moom ah, wax dëgg yàlla kilifa gi yow xam nga ni dëkk bi am na nu mu demee et je pense que li li ma sama question dafay ñëwaat ci li may wax rek kii déglu Wally xam na li Wally wax. mais ki dul déglu mënul xam li Wally wax parce que way naa fi Mborodi Mborodi yaa léegi mu def trois ans gaal gi léegi mu def euh, quatre ans ah bi ma mujj def euh, yàggul euh, comment dirais-je mi ngi wax ci affaire xëyu ndaw yi état d'esprit la bokk mi ngi doog a génn donc kuy kuy kuy déglu wali dina xamni ni mi ngi jëm ci mais ku dul déglu aussi mënul xam fi fi fi di wax ak et je pense que euh, euh, hein? je pense que Lolo, mom xam nga confortable pour mën la wax après nga <laughs> xam nga. Euh, kay quand même mais est-ce que mm, mm. est-ce que est-ce que waaw delu naa ko delu naa ko alors maa ngi ciy wax dépense bu seer hmm. maa ngi ciy wax na xaaral mu ñëw euh, maa ngi ciy wax dépense bu seer maa ngi ciy wax aussi euh, dund bu seer ah maa ngi ciy hmm. wax ñi daan mayee ngi nëbbatu ñi daan sarxee ngi sakkanal maa ngi ko ciy wax n'est-ce pas oui alors jamono ji metti na diwlin tuukar saabu ceeb bi meew bi seer na ah loolu moom xanaa mu loolu rek laa mën a def mënuma dóore ne la ah, <laughs> xam nga loolu waali c'est vrai que am na solo nga def ko ci woy tout ça. waaw mais xëy na peut-être am na ñoo xam ne xëy na euh, du ñu ci woy bi yooyu mais li ma bëgg wax rek mooy parfois euh, ni nga gisee ñeneen ñoo xam ne parfois ñu ci benn concert ñu lancer un message fort ne wax kilifa yi ne leen fi réew mi tollu tey baax na pour ngeen bàyyi xel askan wi. voilà ci benn conférence de presse boo xam ne dañ ci profité wax man côté côté yi laay wax quoi. waaw mais xam nga xam nga mm-hmm. xam nga c'est un choix. Mm-hmm. man je préfère. Mm-hmm nek ko xamanteni ni sortie da fay idéal c'est-à-dire suma ma génnee concert mm-hmm. mën naa joxe message ca mang koy def mm-hmm. su ma waree way dina guéné joxe message te mang koy def parce que attention aussi bul faté ñin ñin way moo tax ñu nawloo ma mm-hmm, bien sûr donc ci samay way lay mëna a waxtaan ak ñoom d'accord moomuma moomuma Sénégal moomuma kenn ba war a chaque instant rek ma takk jël vidéo wax wax non non non non parce que am na ñoo xamante liberté d'expression lañu wax ah démocratie lañu wax ak yu bare bare bare bare lu ci moy rek so jëmul mën nga faqasal dugg ci piège bo xamante do ci mëna sa bop donc je préfère man c'était mon choix de de m'adresser à la jeunesse sénégalaise ci li nga xamante mom lay def muy travers la musique waaw léegi nak bu laajee à ce que ñu war a def sortie war a dara dinaa ji waxtaan ak samay nit su fekkee yenn na maanaam ak jaadu na ci man ma def ko ok fi may mujjee avant may jox sama benn collègue Omar Mbow xam mhm. eh, naa dinaa gis ne am na bari na ci sa sa morom ñi nekk ci aar eh, bi mhm. dinañ jege trop kilifa yi maanaam politique dinañ jege politiciens yi trop trop ba fo fu ne doo eh, da ngay dem ba sax xeeb leen que ñii xëy na askan wi moo leen tax a jóg Euh, tey laaj bi ma la bëgg a laaj Waly euh, noo gisee euh, débat bi dem ci ñetteelu mandat. bon loolu moom xamaguma ci dara parce que man déggaguma le père de la nation ki kilifa gi wax ci dara donc man hmm. mënuma ci wax dara ndax paako kenn du ko jutu ci mbar. Hmm. waaw mais li ma la mën a xamal daal mooy en tant que porteur de voix ni nga koy waxee moi tout ce que je. di suma ma dama koy wax à travers ma musique. Mm-hmm. parce que euh wax tamit c'est bien beau mais wax ñi lay déglu tamit amna solo. je veux pas parler pour parler rek non. <laughs> waaw dafa melni ni ngi waaf yaa ngi waaf question yi de wa si si si tu veux bu fekkee loolu <laughs> waaf nga gis amul problème. mais <laughs> amul problème mag lay jox Omar Mbow. maa ngi lay jox Omar Mbow. ok jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum aleykum salaam naka def wali. maa ngi ziar ba Sidaat maa lay nuyu di nuyu auditeurs yu RFM yëpp bon man wali benn question rek laa am bon ah. je dirais pas même que question peut-être que li li ma bëgg la peut-être amaana aussi am na ñu bëri ñu ko bëgg sa sa duo ak Youssou Ndour kañ la waaw loolu day wax dëgg yàlla hmm. ci man dépendrul ci man te xam naa yi tàggeewul ci moom waaye loo gis rek dafa am jot ak àpp loo gis rek dafa am heure man je pense que le moment bu waree jot rek dina jot incha allah parce que aussi bul fàtte ni bul fàtte ni loolu loolu loolu dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a def bés bu rëy rëy rëy dañ ko war a jaay sénégalais yi ñuy déplacé wu fu nekk ñëw. parce que loolu moom lu extraordinaire la. mu ngi mu ngi sa programme est-ce que. est-ce que mi ngi sama programme c'est prévu est-ce que oui. non man non, ma problème boobu man je peux chanter avec tout le monde yàlla xam na ko je peux chanter avec tout le monde bilaay ku ma xool ku ma xam-xam ne nit ku am respect la je peux chanter avec tout le monde et puis way ak Youssou loolu loolu honneur waali la uh-huh. ndax suma ma bàyyi la. yàlla dogal na muy kilifa ci musique bi amaana bu la bu mu la jaaxal tey ngeen dégg Youssou Wally u arena fu fu africain mus fa dem ah wàcc leen ko de mën na nekk de waaw moom kay moom la ñuy xaar <laughs> maintenant maintenant deuxième question bi mooy waaw keroog gis nañ fi Afrique wërngal këpp mhm. côté musique fii la nekkoon ci mhm. événement boobu di Afrima. Mhm. ñu tuddee ko Afrima Teranga Mhm. daanaka gars yi ñoo jóge bi feneen ñëw fi rafle prix yépp yobbu qu'est-ce que ça t'a fait. waaw Afrima ñëw nañ seet ci ma je pense que vidéo yaa ngi ci internet bi ñëw nañ ba sama kër seet si ma ils ont compris que nit mënul dugg fii ci réew mi di jëfee ci musique ba pare tëb waali boo xoolee seen affiche yi j'étais pas dedans man maa leen jox autorisation après ñu doko def je leur ai dit que dama xawa japp intéressé au mais dina le soutenir dinaa def vidéo wax ni Afrima mi ngi ñëw Sénégal et que suñu doomi rew ñoo ci bokk na la japp la ñu voter leen donc non la ko waxé ci vidéo bi té non la ko défé parce que dafa ak ma j'app et puis euh, nit ku nek dafa am lo gis euh, dafa am euh, foy taxawé actuel moment bob amoon na fu ma am luma ma def ak li waroon xew donc je pouvais pas mënuma ci won imprégné à 100% mais li ma mënoon mooy jox leen suma cadeau defal leen vidéo en tant que chanteur sénégalais té xamni ni buntu la ci réew mi ci kat mais mais lu la def au fait bi nga le fait que ñom ñu ñëw fi jël prix yépp raflé ko yobbo nga xamné Sénégal danaka amuñ ci dara ñun ñu nekk fi di tiitaroo ñom wali ak ñenen ak ñenen ak ñenen euh, voilà lu la def quoi je veux dire. ouais mais parce que moi aussi beaucoup moi beaucoup moi donc samay nawle tamit ñoo bokkoon donc aussi il euh, y a des choses yoo xamante ni su ma ko waxee mën naa toucher. Euh. je veux dire ça aux sénégalais. ñi ñi bokkoon ay sénégalais lañu ay waykat lañu dañ leen waroon voter ñu gagné pour man tout court loolu rek la. d'accord dañ leen waroon jàppale. li may ni tamit artistes yi ñu ngi dund lu metti fii Sénégal parce que duñ leen jàppale. d' accord loolu la mais man bokkuma woon vraiment dama leen ne euh, j' pas prêt parce que dama amoon si nañ yu ma ne woon. d' accord leer leer nañ pour pour kii rek euh, bon dafa am benn xale bu ma xam. ma bëgg mhm. la lool. sànq ba léegi nag bu ma xamee ne man sax moo xamal ne peut être à part bandana su ma dégg tey le vendredi affaire. Euh, nga nga nga nga mën a xam lu lu tuuti rek lu ndaw ndaw ndaw allo euh, Salam alaikum. Alaikum salam, wa maître Sao, vous allez bien. ça va Anoua ana je suis avec le maestro le marine, le chanteur du peuple Waliba Lagosé. il est là. merci Sila, demain que parce que temps bi bariwul. merci. je vais parler avec raison. et non avec la passion. da inviter un vrai travailleur. Ligue 4, tubaab méticule. méticuleux. Wally ñun dañu nekkoon étudiant am vingt-deux ans nekk xale bëgg ko lool nekk université di ko jaayante dem penc mi di ko fa fekk di xool ci moom gis ci moom ku am jom ku gëm liggéey yàlla def lu ëpp na dix ans si daal. Mhm. en deux mille quatorze ñu daje par hasard daje par hasard ma koy waxe ay pansak ay penc mi ay way xam nga lu ma tontu. Mhm. ne ma frère maa ngi leen di bégal waaye pour ngeen dëggal ma dama bëgg ngeen jàng ngeen liggéey décroché boo diplôme ngeen utile société bi jàppale seen waajur jàppale seen dégañaale loolu ngeen may dëggale yéen samay fan si étudiants yi en 2014 la loolu ne ma man nag bu dee wéy bi liggéey mooy joxe place na seen xel dal loolu laa bëggoon a tënk ci wan la kooku dimension bi mu bi mu nekk. super ku gëm ndaw a ngi noonu. étudiant bu la interpellé dafa waxi fant nga ne ko dama bëgg pour nga bégal ma nga wax koy étudiant fan si nga ñu jàngi décroché ay diplôme amal njëriñ seeni waajur amal njëriñ askan bi liggéey rek mooy tey loolu la ma si boobu. seul le travail paye. benn xaritam bu ñuy wax Ndiogu Mbaye dañuy waxtaan un mu ne ma waali gay la ci liggéey maanaam waali liggéey day liggéey ba muy yërëm ko dama impressionné kii yaatu du ko topp. ndeysaan. mais xam nga lu mu ci teg quelque temps lu ci teg. mooy étudiant yi xam nga lu mu leen wax. Hmm. du mettee. muñal. muñal. bu seddee sangul sa sa mbalaanu. ngor ngor. mu ne li ngeen bëgg a dund bëgguma ci jaar waaye fi ngeen jëm laa leen di nataal. teraanga yoonu teg extra extra ñu ko doon déglu di xabtalu di xabtalu kooku tey moom ngeen sànn ndeysaan. sa philosophie c'est le travail. gis nga ne ñun administration bi dañ koy famille ci administration en kenn fa ah bon. As je vous jure ah. te yéen mën naa ne ay kilifa ngeen ci réew mais ci parce que état d'esprit moo ok l'état d'esprit revient alors. c'est un travailleur. super il est digne. Mhm. nous sommes fiers de revendiquer ça. super alors. maître en tout cas merci maître. je vous remercie Je tamit ku Je ñaan nga. la surprise bi maître. C'est philosophie. dañ ko épouser. jërëjëf remercie. da nga remercie. ndaw da nga gëm ndaw remercie. maître. da nga gëm maître. te way nga ko sa album bu mu bi. al foo mënti dem il faut nga wax ak ndaw ñi yërëm leen ni leen a yërëm. Mhm. mais saa su ne yaa ngi leen ñaax ci liggéey. Mhm. paresse bi génne na ko. Mhm. foo dem si réew mi ndaw yaa ngi ñàkkee xam nga ngir bañ a dégg kii paresse la. loolu ñaax la ñaax la message la. c'est très c'est très bien. merci beaucoup. merci maître c'est gentil. je vous en prie. Vous bu ñu doon affaire yu feeñ mais Wally quoi. waaw mais Wally jar na bien sûr. c'est un jeune kooku au delà de woykat oui oui. c'est un modèle pour toute la jeunesse sénégalaise. c'est une référence ouais. quatre là, c'est quatre. leer la leer na. je vous en prie Sida allez merci, merci beaucoup allez bonne soirée maître. merci c'est c'est gentil alors euh, quels sont tes sentiments Wally. c'est c'est émouvant c'est ça fait plaisir ah. Ouais. ça fait li ma ci yi ma ci bi ci gën a métti ci gën a euh, bon na. may mais wax lu metti non mais eh, écoute yefi bokk parce que non non attends xam nga c'est pour le meilleur et pour le pire. tu es d'accord donc euh, yow sunu artiste nga. Mhm. Sénégal nit ñi safo la bëgg la. xalé yi mhm. bëgg la mag bëgg la. bu ni lu neex rek na wara partager ak yow war nga am lu la partager ak yow parce que sa sortie euh, mu neen wax ni. na mhm. mais tay nag am nga ñëw seet si Sidaat te xam naa ni génn la yombul man mën naa wax ni tey li nga def nii sag la ci man lu neex la ci man. ndax nit dina la soxla wala soit bëgg nga ñëw ci émission. te wax fa dëgg yàlla doo am temps bi wala soit ak sa programme du la ko may mais man danga ma defal lu neex. mooy Sidaat dinaa si ñu toog waxtaan. ba ma koy wax sax dama naan dama ni est-ce que xam naa daf may wax nii rek quoi parce que xam naa ni xare loolu lu ma nekk xaritu papaam daal ma xam nga man man sa papa mooy sama xarit man. Mhm. donc tey dañuy partager loo xamante ni que dama bëgg vraiment nga waxtaan ak sénégalais yi ndax suba danoo war a sargal une légende un monument de la musique sénégalaise muy Thion Balago Sek au Grand Théâtre. Mhm. et ça va être un événement exceptionnel et puis on évite le Sénégal parce que Thion Sek moo xam génération bu mu mënta doon yàgg naa sagal Sénégal yàgg naa Sénégal góoru jaaga boobu nag na sargal demee au grand théâtre te dama bëgg Sénégal ñëpp ñoo répondre alors tey euh, Waly lu lay metti bëri na may nu ci nag. vraiment mm, mm, nu war a xam tuuti lan. naqari na lenn moom dinaa la ko xamal. muy lan. yow rek yaa mënoon indi fii. man xam naa loolu. billaahi xam naa loolu. d'accord. Mhm. ku ma xoom xam ma ci dignité mm-hmm. ak fulla ak fayda mm-hmm. yow rek yaa ngi mënoon indi fii tey ndeysaan waaw te lu neex sama xol la tamit lu neex sama xol la li ma defal nii vraiment parce que fi may nekk nii di la di la fi teg uh-huh. di wax si yow uh-huh. bëri nga fi ay soppe bëri nga fi ñu la fi bëgg uh-huh. ñoo xamante ni que duñu jóg saa su ne di la enjoy kon loolu daf may jaral lu ne Mhm. man len waa ji ko indi. Mhm. parce que man xamna ni amna fuma tek te man amna fuma ko tek mhm. loolu nak mo waral li tay wali euh, wali nga bëgg xalé bu baax bi. xam nga gis nga sidat man je pense que bi may bi may njëkk joy sur scène. c'était pour les familles se rencontrent. famille yi ñu daje. ñu daje les familles se réunissent quoi. waaw ah, se réunissent ah. ku ne xam ni ku bëgg dajale la. Mm-hmm. et à un moment donné en voulant trop dajale trop defar. Mm-hmm. da ngay da ngay day mel da nga muju ñak fayda. wala da nga afa am intérêt bu ne ci ginaaw. alors que du lolu. Yalla la baaxoo nga baax donc euh, dëgg la je pas avoir mal mais chaque fois suma xol moom may tooñ ak bëgg déglu cadeau ak bëgg yaru tu vois lii nag dinañ ko yaatal bés. Hmm. et je préfère su ma ko yaatal les membres ñi nga xamante ni même bu dee benn nit sax ah fekkee na ko mu mën a ñu waxtaan parce que je veux pas parler après ñu déplacer mes propos yóbbu ko. yóbbu ko feneen feneen àggu fa. Hmm. Hein? Mais toi, tu es un artiste engagé. Hein. Ouais, je sais. Je sais que tu es un artiste engagé. Mais bon, et mais, tu n'as pas. Mais, hein? mais Wally, Wally, aime tout le monde. Si. Je te promets. Eh, dama dof wala Wadi Mo, dama dof ci yow euh, Sek euh, featuring euh, Mia Guissé alors une collaboration yéen avec l'album d'Esprit comment ça a été c'est venu naturellement c'est une sœur c'est une sœur qui est qui est vraiment adorable jigéen ju baax la ndeysaan ku bëgg musique ah, c'est venu naturellement euh, via um, Youssou Baizal nous euh, nous ko contacté nous avons ku disponible kuruma manko ngi mon nuyu sama frère ah ñu déplacer wu ci saa si studio déglu morceau mais comment tu as fait au fait nga xam ni fii. Mia Guissé moo war morceau bi au fait l'inspiration je veux savoir. alors c'est un moment qui a maintenu, elle avait besoin de soutien c'était une femme de fer jógee

waaw yàlla baax na de. na ci dox de. bëgg naa ko de. non na ci dox nag. billaay bëgg naa ko te wóolu la ci. yàlla baax na. non non loolu na ci dox yàlla na ci yàlla def barke. yàlla na ci yàlla def barke en tout cas yàlla na ci yàlla def barke. alors euh, wali euh, ci biir euh, bu ñu jógee ci dama dof ci yow tu as chanté aussi le temps. Hmm. le temps et quand tu l'écoutes vraiment da nga koy teg ci temps bi en même temps. mais hmm. mu ànd ak temps bi ànd ak tëggirin temps qu'est-ce que tu veux nous dire sur le temps waaw temps nag dama ko inspiré wu ci suma papa parce que chaque fois suy wax rek dafa tàmm di wax suñuy temps suñuy temps suñuy temps. <laughs> comme ça. waaw suñuy temps sama papa mës na jël micro sur scène. waaw euh, ñëpp fond na lu nekk lay wax pour wax lay franchise de Thione ak honnêteté moom. écoute Sidaat mon père était un incompris. si ndeysaan. nit kese la woon. wallaay ndeysaan xam dara. wallaay xam naa ci dara xam woon dara. wallaay ndeysaan nitu kese la woon. balaago.

regardez-moi coon xamu woon dara dara dara dara sama benn cousin bu ma ngoonee mos na dem jël ay chaise mhm. yu jar mille cinq cent xaw ma deux mille ñëw di ko jaay jaay ko chaise sept mille xaw ma dix mille jaay mu ne ko ah lii yow mën na de ma ci cent <laughs> ñu indi chaise teg ko foofu chaise yi da ngay rek mu damm foot nag mu damm c'est-à-dire da ngay jël gadget sax benn gadget bu for ko ci mbedd mi ne ko lii lii lay jar mu adopté ko moom jënd ko pour wax la xamul woon dara dara dara dara. ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. allahumma amin waaye. yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko foofu gënal foofu. amin, amiin waaye ndeysaan te suba yaa ngi koy euh, waajal. Mhm. le rëy au grand théâtre nu fas yéene ko defal un hommage. Mhm. boo xamante ni képp kuy soppee Thione Ballago sec mhm. moo xam ci yenn génération ngeen ko daan euh, enjoy. doon partage ak moom vraiment des euh, bons moments yi nga xamante ni que nekkoon na fi suba nag nu fas ko sargal. Euh, bégal ko fas yéene ko wàcceel le euh, ci pur programme bi lepp ci la bok mais aussi le rendez-vous c'est au Grand Théâtre avec euh, les marines avec Wali Balagosé qui va jouer le spectacle alors demain là moi donne programme bi carrément. waaw soirée bi nak soirée Wali Family la. Mhm. ku ne xam ni man Grand Théâtre monotuma faut jouer donc sparaat bi rek la jouer donc Wally Family ñoy def soirée diko ko sama papa. Nous tamit ma depuis 2009 ba donc amuñu salle buñu jouer. y'a que que le grand théâtre mhm. donc nous ñu jël dem jël salle bi a ko euh, euh, ci ci grand ci non non jël ko ci salle bi ci salle donc di fa sargal Papa chon ñom nak euh fuñu fa parce que nit bu le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux mhm. a mo dogal ma depuis bi ma donc euh, faire marche en arrière andak de un honneur la ci man ma contentement di ci am di suis content. Mhm. Ah, Family nga alors semaine dernière aussi on a joué fi nga xamante ni moo di Barramundi il tamit a na ay polémique euh, tuuti <laughs> ah parce que euh, samedi bi il paraît que ni di xaar Pape Diouf ñii di xaar euh, Wali. c'était quoi le problème au fait Wally kenn kenn mësu la xamee Waouh, waaw waaw man de dund naa ba toll nii ma toll <laughs> way way naa ba toll ni ma toll ñaari date moom problème mu xëccoo date moom mësuma ko am oui waaw xam c'était quoi peut-être que li ma mën a wax daal Euh, peut-être que je sais pas malentendu avec moi malentendu. peut-être malentendu moi mais je me di sori ci vois parce que Je dafa dogal su je waxee vexé Papa Diouf. je mhm. que tamit vexé ki nga moi euh, boîte mhm. et man dañ ma que sama me ne ma dañu bëgg nga jouer. mais lo xamanteni dem na ci yoon actuellement. est-ce que baax na waaw moo tax sax wax ci da ngay hein? ma wax ci sax. mais mais nooy dundee loolu actuellement. parce que attends euh, xam nga information bu yegg ci public bi. waaw du lo xamanteni ni lu mën a parce que yegg na ci public bi. waaw waaw waaye man deewu ci yoon. ok man deewu police porté plainte. ok deewu police porté plainte. sama yoon neewu mais bu len porter plainte nak man ken porté wu plainte mënuñu maa porter plainte. personne ne peut diriger une plainte mhm. avec ma personne. non non non Baromundi nous avons jël ci photo de def ko ci page bëgg ma jouer ok Amne polémique dem naa feneen samedi Bobo man m'a jouer. Alors, euh, maintenant, je veux savoir, est-ce que euh, Wally va continuer à jouer au, au Baromundi ou bien il va continuer tout le temps au Vogue Je jouer au Vogue. mundi su ubbee. mayugal yi baaramundi. Hmm. mundi parce que dañ ko tëj dafa nekk ci dañ ko tëj c'est c'est scellé. donc bu baaramundi ubbee. su ma amee. nga reprendre sa activité su ma amee feeling joué feneen. Mhm. ma dem joué feneen. Mhm. waaw su ma amee yëg yëgu nag euh, xool fu mel ni benn place ma jënd ko ma jënd ko. mais Wally <laughs> Wally euh, donc la demain Tu ouvres une boîte ko sa vraiment c'est une question. c'est une question. boîte non non non c'est ah, une question ah. c'est une question. Ah. mais tu es un artiste. artiste Tu vas sortir le je veux savoir est-ce que Wally demain ubi boîte. waaw waaye structure bi ma mën a ubbi mënul jaay sàngara ok mhm. man bañ naa ko ba du ma def coproduction ok dama lay wax ne la damay jouer ci sa boîte de nuit mhm. entrée yi maa ko moom mhm. la fay jaay ci naan sama yoon new ci bugguma ko tey bugguma ko ëllëg te yàlla dimbali na ma duma ko bëgg bu sob yàlla dama yàlla bàyyi fois boobu dama ko bëgg ba keroog mooy sang. tu fonctionnes comme ça. waaw c'est clair. du ma jël xaalis boobu. ok. alors bi nga xamante ni attan naa ko nag muy entrée yi. waaw dinaa ko jël ok. <laughs> waaw boobu antan naa ko entrée yi ngay jël sama conscience antan na ko. mais daal consommation yi doo ko laal. <laughs> waaw consommation yi antan ma ko wax dëgg yàlla. mais Wally artiste ak famille jouer tout le temps day gars yi ñuy jaay sangare seeg. waaw d' accord naa waaye man je préfère man tam ma jël sama sama bunt rek. kon yow yow yow tey tey képp ku la engagé woon tamit tey euh, mm. fay la en même temps tamit di ko jaay tamit euh, moo xam tey noonu lay amee morning euh, ngeen war ko bokk comme doo ci bokk. déedéet man am na ku nekk ci sama bunt ku fay toog.

xale bu pare nga dama pare donc. xale bu pare mais projet quand même. waaw euh, album international bi dina ah bon. dina jugé ci kaw bu yalla mais man temps que dama ko mais dama ci non Je lan euh, gis na ngay préparer clip avec Akon. mu ba nga ko soxla pour def ak moom jio mm. dafa ne la woon dama liggéey. waaw daf ma jàngal àdduna xam nga ñun tamit dañuy bàyyi xel ñun suñu liggéey. Uh-huh. Wally tey ban sentiment nga am tey ci lii ngay def ak Akon. ak la fa xewoon. Akon ndeysaan c'est un grand boo xamante ni saa bu ñëwee fii même bu dee benn yoon dinañ ko déggante via Mbacké ah. eh, moo tax ma ne la gis nga Sénégal dafa naqaree waxee da ngay waxee fii rek. nga wax li nga sentir ñu ñu déplacé ko. waxal li nga sentir waxal rek. Mhm. bi may wax ci wax Akon. Mhm. sam papa laa njëkkee. Mhm. ci sam papa laa njëkkee. dal ci Akon. dama ne sam papa man soirée bi ma njëkk a joué daf ma boîte am ma ay musiciens am. ok ne Akon bi mu ñëwee daf may demal nga liggéey ba ci kanam. liggéey la laaj. mais loolu métti woon na la Wally. daf ma def dañ ma loolu mais daf la métti woon dañ ma jàngalaat duna. en étant jeune xale bu ndaw da ngay am mais actuellement fi nga toll nii da nga xamni ki mo la jangala aduna mo la tek ci yoon. nu mu la jàngalee aduna daf la jangala aduna parce que bàyyiwu la nga yaafus lolou bi wax noonu yok na ci man 80% de jom bo xamante jour bu ma guéné fofu je me suis dit écoute je vais plus jamais demander service à quiconque. Mhm. moo -hmm. motax ni metti won na la. wa non motax tax la daf ma yok jom. Et, et, et, et, si je me rappelle bien, tu as même répondu que dina Dembe Yegfo yegg foo xamante ni sax ñu raw sax école na ndok ñom si je me rappelle quoi. waaw mais dama ne dinaa dem ba jamono. Mhm. muy gis may way ak ñu ñu. ak ñi ak ñeneen ñu ko raw. non non pas ñu ko raw ah bàyyi man sénégalais du ma nangu ko bàyyi loolu waay tamit bu loolu waay tamit. <laughs> waxoo ko woon ah. non de waxee ma foofu dama ne dinaa dem ba mu briller mu xam ne. gis ba étoile bi tàkk li ma waxoon maa ngi ci. après y' a pas longtemps li ma waxoon maa ngi ci. te loolu école defalu moo ko maa ko defal sama bopp. et j'en mais ñu gis la tamit. avec ah, d'autres xaar ma fëgg sam buntu. Mhm. ak koo doon nag. ma ne. Hmm. koo mën a doon. Hmm. artiste buy xaar ma fëgg sa bunt ne la dimbali ma wala defal ma lii. doo ko gis doo ma gis. quoi mais mais Wally mën nga soxla nit tamit. déggoo ma xanaa. si su weesoo ñu seq liggéey war a liggéey pour réew mi. Hmm. naa la woo ne réew mi kat lii lañ leen war a defal lan nga ci xalaat nga wax ma sa avis ñu defandoo ko mais man ma ñëw demander artiste ndimbal moo tax dama liggéey comme dof bugguma ku ma ketal ëllëg. Mm-hmm. bugguma ku ma ñaanal njëkk ëllëg mm-hmm. buguma lu ñàkk fayda mm-hmm. bugguma dugg fenn di fa manqué meluma noonu mais c'est quoi le secret de wali Wally euh, il chante il est friqué il a il a des possibilités je suis bien je suis bien je suis bien non moi j'adore ce garçon je vis bien je suis bien ouais je vis bien tu vis bien. Machallah. Mais, Wally, Daniel là, Madame, c'est business en dehors de la musique, c'est quoi Alors, euh, j'ai pas de business. Sérieusement, j'ai pas de business, à part mes contrats de pub, tout ça là, mais j'ai pas de business. Tu des, fois, des fois, il m'arrive d'acheter quelque chose, une voiture, n'importe comme tout le monde. Mais j'ai pas de business. Mais j'ai auto.

J'ai conduit une Rolls Royce cool nan mon gars. Muni, Je J'ai une Rolls Royce cool nan mon gars une RR. ça coûte combien. ah ouais. 100 millions 200 millions. Ah non non non non non. c'est pas cher alors. non non non non non. beneen level. non non non non 500 millions c'est pas du jeu mon gars. ça coûte combien. c'est pas du jeu c'est du lourd. frère. <laughs> <laughs> c'est du lourd alors hein? c'est du lourd frère. kon Rosby bi nous non j'ai connu RR Elle dawal c'est du lourd mon gars. c'est du lourd c'est du lourd mon gars. mais pas pas du nga bëgg matériel yi. waaye yo man C'est Sidaat man léegi. est-ce que suba ça dawal avion yi. ñu Y'en gis qui gis Ce man dal man <laughs> américain yor oto bu baax ñu ne ndeysaan xool ko oto bi star la. temps ci gannaaw waaw xaaral rek xaaral rek. fan fan lañ daje bu bu defee ñu ne jaadu na. léegi ñun ñi gëm ya ñun ñi nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni gëm nii dañu war a am dara par exemple euh, un musulman wala chrétien wala koo mën a doon dëkk Sénégal Afrique nga dëkk rek waroo am lu baax ne waay lii mat na mais waali yow yow yow mu neex ci weer bi mën nañ la gis nga dawal ay cinq wala dix oto yu yàlla ma ko jagleel dama koy dawal balaa ma dee su ma deewee damay perte yow semaine yële passé rek daje ne ci kaw fee nga yor lan

way way waye waye waye waye way way mhm. waa léegi man du ma dund ah kañ oto neex na ma sama passion la way lu mu jar dinaa ko jënd dawal ko parce que sama xaalis la maa ko moom su ma dee damay perte ah. kon est-ce que du kon euh, euh, ama man du ma perte fii perte fee ah, <laughs> non doo perte fii perte fële waaye yow non damay damay neexal fii damay dund fii neex la fële mais dafa am lu ñuy sentir tamit ci yow ah. gëm yàlla waaw dund yàlla ji mais lu wax ngeen yàlla suñu tey li mu def tey mm-hmm. li mu def tey jox ma mm-hmm. jox keneen mm-hmm. xañ yuusu jox bàyyi yuusu xañ yaayam waxin la quoi pour ñu comprendre jox diw jox diw wala ñu jox ñu jox la yow xañ waali léegi yow si laat ñu jox la yow xañ waali yow da gën waali déedéet léegi yow yàlla mi tànn yow jox la boo ci dimbalee ni nga war a dimbali doo ci dund sant ko waa téye ko ba xam di ko jëriñu toog dia jaaga téye ko ba xam yow mës nga kuñ man man xam naa ne ku am fit nga waaw damay ndox benn anecdote boo xamante ni que bon man maay sob sax wax ko waaw parce que dama toog ak mm-hmm. eh, mama jaga man ngi koy nuyu sama yaay boy, mm-hmm. mu wax ma lu am solo mu ne ma Wally Seck dafa amoon benn lastu oto mm-hmm. benn lastu oto bi mu doon dawal oto bu rafet mu ñëw gaari ci buntu kër gi ne ko mais euh, oto bi ngay dawal nice na wali jël caabi otobi, bi jox ko geni ba muy génn ci kër gi taxi la jël boobu amugu sax beneen joko benn lastu oto la yor. Mm-hmm. yëkkati bi jox ko mm-hmm. ce jour là jaaga nee na di nga dawal oto boo matok sàppi la. Mm-hmm. maa toog nii ma ko. mi wax may dégg histoire bu yéeme la. ba pare Wally ma wax la benn affaire de. sa mu génnee xam nga yow joxoo ma ko. xam yow joxoo ma ko. wax na ma jaagaa ko teg sama loxo. Mhm. wax na ma moo ko teg sama loxo. loolu dama koy wax Sénégal ñëpp dégg ko. wax na jaaga moo jël seeni teg ko sama loxo. dama mhm. sidaat na moom mu ne ma am téyel. Mhm. ma ne ko yaa may sas de. mu ne ma am jàppale sa frère sa complicité ak sa yaay lan la Wally. waaw sama yaay moom sama xarit la waaw sama xarit la. te nag jamono ji dafa gën a yokk ndax maay maay borom këram. ndeysaan maay taawam bu góor. waaye tu l'as dit. sama xarit la euh, gis nga Sidaat nit dina def dara. Mhm. doo xam fa muy toll ak fa mu jëm. dëgg la gis nga histoire boobu. Mhm. xam naa ne da ko rafetal sax. <laughs> non non waa déglu ma rek da ko rafetal. Mhm. gis nga nit lépp looy def rek. def ko mu doon dëgg ci yow. dëgg la. Thione Seck dund na ba ni mu génnee àdduna. Mhm. lu mu am mbokk la ko jox. ndeysaan. bilaay sam babaay gaynde. bilaay gaynde la. bilaay maam baay bu góor. au oh, nom man la papa Thione. kër gi lu muy saf. ay su ma doon singom dama koy taf. bu doon benn laaf dama koy laf. kër gi la maison. accident cuun. barki Cheikhul Khadim gaynde pire wam jur ku ñeme engagement ku ñeme.

ay samba boy jóge feulé nax ko hmm ay naan day def day def mm-hmm. victime la buñu nax xamul dara histoire bobu ngay wax ni bobu je suis à di way sam papa di way en plein mu jël investissement bu lourd di ko def penc mi di xaar rentrée d'argent un gars qui est venu qui dit ok euh, je suis venu récupérer l'argent bi ma bi ma war bi ma war a jox. Mhm. mu ne ko bàyyi ba suba mu ne ko xaar ba suba. mu ne ko non affaire baa ngi nii kayit bi chèque bi nii jot naa ko bàyyi ba suba mu ne ko xaar ba suba tey laa jot sama xaalis. comment. barki Serigne Tambake. mu ne ko nu ñuy def mu ne ko ah mu tey laa jot sama xaalis mu ne ko sawaay ñaata mu ne temps mu ne ko oto bi mot na ko mu ne ko jël nga dem ni la demee il faisait 21 une heures sama yaay mi war ben sœur bu beige. ndeysaan ak ben yéré mu wàcce yéré bi jël sër bi wadd ma oh c'est fort. néma ma auto xamou lu lay sonal yow waye waaye di nga may auto comme kuy may dal bés boobu bi may génn di joué ji con sekk mi ngi ma romb ci talé bi may jël taxi ñu bok fuñu jëm mu néma fo jëm ma ne ko penc mu néma ma à tout à l'heure nga jël taxi. waaw dama ne góor dëgg ma jur. dëgg la pire. ku ñeme engagement. lépp lu mu am joxe na ko ba jeel. ndeysaan. Mhm. lu mu am mbokk la ko jox. mu am jaami la ko jox. barki Seydina Muhammad sama yaay sama yaay dama koy dama koy xool siraat ndeysaan dama ko yërëm. Mhm. parce que fi mu war a neexee. doomam hmm, màgg voilà ndeysaan. Ah, hmm. mu war a dund bonheur ak alaajem. wallaay ndeysaan la oh là là waay. est-ce que comprendre nga. c'est émouvant c'est émouvant waay. waajur bu jigéen bi Wally màggee la xam xaalis. ndeysaan. waaw. sama lu mu mës am génn na ko kër gi joxe ko jaam yi barki Mouhamad. alors voilà. Euh, émission bi sax euh, mi ngi jëm man sant kii may vraiment Ça euh, me yaa un ciy taas li c'est quoi les kii comment dirais je suis un peu Je me a dire sax tuuti naa li c'est c'est émouvant au fait waaw dafa dafa yéeme je je sais pas je sais pas.

Far yaa ngi may touché nag de. barki Cheikhul Khadim c'est-à-dire ni may retaane nii. di kaf di ree ñu may gis nii. Mhm. teraanga gi nii. Mhm. bu yokkul du wàññeeku. incha allah yaa ne yàlla gën a jàppale. bu soobee yàlla dafa dama ko gëm. xamal ni suñu fierté nga. dama ko gëm xamal ni dañ lay tiitaroo di la sagoo. Eh, di la ndamoo. jëf ndax doomi réew mi nga. jërëjëf am nga jom. jërëjëf am nga fulla. jërëjëf am nga fayda. jërëjëf fonk nga say wayjur. jërëjëf te yaa ngi jàppale say wayjur. jërëjëf jàppale say mbokk. jërëjëf jàppale say xarit. Mhm. jàppale say am di jàmm. Mhm. Alaaji Youssou Dieng mii nag moom maa ngi koy gërëm di ko sant. jërëjëf mën naa wax ni émission bi boobu ba léegi noo ko doon coordonné. jërëjëf te nit eh, bu la defalee lu wax dan eh, lu baax dan ne boo ko waxul booy lim seen noonu nang ko ca boole. Mhm. Youssou Dieng maa lay remercier bu baax a baax de la wax ni kontaan trop ci yow gis na vraiment collaboration bi ak liguey bi ni ko don tàggatee ñun ñaar ni ko don gérer euh, ba mu agsi fii vraiment je tenais à te remercier Wally euh, vraiment mon doyalu ma sax ci émission bi. Mhm. mais euh, je suis obligé nu jeexal de toute façon waa observateur tamit ni ngi lay xaar bëgg neen bind ndax nak si daate la indi. Mhm. te namoon nañ la. fu mu toll nii maynees ngay doon ñëpp ay capp. jërëjëf jërëjëf Thioune. merci jërëjëf merci su kàddu gi dëngee rek maa ngi koy tuub. lépp nice jaajëf merci mon frère. allez beaucoup de courage. yàgg ci dara fa ma jaay naa juddu rek grandeur. màgg tekki waay. yàlla may na gudd fan. li jaasal li doon